بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله عن شيخ الشيوخ أبي العباس سيدي أحمد التجاني وعن وارث سرهما مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام سيدي الحاج إبراهيم نس ابن مولانا سيدي الحاج عبد الله التجاني الكولخي يا همة الشيخ اغدري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد مكي صبي يب مانلين دي نيو di leen ziyaara di ñëw ak yéen seen darsu altine muy jawahiru cheikhul islam maulana alhaaji ibrahim Niass moo nekk ci ndénkaane yi ba tey tey nag ñu ngi ci lettre al ashir min al wasaaya ndénkaane fukkeel ci dénkaane yi xam naa bu ñu amee fukkeel ci dénkaane yi dafay war a nekk ci ñun dégg nga ko fukk benn ci darsu yi kon yalla yàlla may ñu deg yow mi ma top ma ngi ci 26e page page 26 cheikhul islam mune min madinati kawla khin li 25 min rabii thani li day madina la ko bàyyi bindee mu ñaar fukki fan ak juróom la woon ci wéro rabiu thani 1356 1356 loolu nag xam naa boo demee dafay tombeek 1936 1936 di siim at même at ci la cheikhul islam maolana alhaaji ibrahim Niass ma Madina pour dem aji ci ajam gu riche googu noonu waaye ca weeru mujj wa muy décembre cheikhul islam ñu ne ko lettre bi ku tax nga bind ko mu ne ila kaafatil ahbabi lettre yi lettre bi sama soppe yep ko mom man de ci la bok kon jar na bu baax kep ku bëgg bay cheikhul islam mu ne lettre bi ya tax mu bind ko kon jar naa déglu bàyyi wax ci lettre bi cheikh ibrahim mu ne bismillahir rahmanir rahim bismillah sof ma suma wax ci tuddu turu arrahmaani buur bay yërëm mbindaa foo ne àdduna yëpp di leen xéewal arrahimi buur bi yërëm jullit daal ci àllaaxira alhamdu mboolem xaaji cant yi ñeent lillahi sax la ñeel yàlla wala nga ne mboolem façon yi sant yi ndax sant kat mën ngaa wax ne ñeent la waaye ndigam yëpp ci yàlla lay dellu mazahir yooyu kenn mënu koo dajale kon neel mboolem façon yi sant yi mu ne lillahi aji sax la ñeel yàlla rabbil alamina bi borom bi ndéefi بين الرحمن يلمي قيول من دفون يدنا يب الرحيم يلمي قيول جل دال تعالى خرا ملك يوم الدين موي بورو بسو فايبا بين أما بعد غناو بما دفي براعة الاستهلال براعة الاستهلال موي لي فيلم كاتي دي اوهي بيبليسيتي واخلا تي ليم جيم شيخ الاسلام فيم ام تي اي فاتحه جي mooy maliki yawmi diini yàlla mooy buuru bisu fay ba loolu ko xam da nga xam dëgg-dëgg lan mooy tawxiid kon cheikhul islam lim bëgg a dénk taalibe yi pour ñu xam ko mooy nan la ñuy wéetalee yàlla muy dong luñ fonk fonk bàyyi duñ ko def muy yàlla mooy doon suñu sëriñ bi ñuy yóbbu ci yontu yàlla cheikhu tidiane luñ fonk fonk cheikh duñ ko def muy yàlla dañ koy def mooy suñu njiitu tariqa bi ñuy xaw pour dem ci yonantu luñ fonk fonk yonte yàlla Muhammad baye ne ñun liñ iwuté ak yenen xet yi moy ñom dañ daan def seen yonentu yi ñuy yàlla ñun nak yonte yàlla Muhammad forna lol ci ñun waaye du yàlla deng baye ne fa azka tahiyat gën ja sel ji neyo wa nawaami wa nawaamil barakaat ak gën ja duuf ci barke nawaamil barakat moy barke yo xamne dafa dafa dafa bari barke bu bari deggu neyo go xamne dafa sel bu hand ak barke bu bari wa alaaji ibrahim ñas fo jele loolu mune an madadi afdalil khaliqat man ko jele ci tëbbam ki gën ci li yàlla bind ci bi fadli al ard wa samawat ci ngëneelal ki bind suuf yi ak asaman mu jëm fan koy neyu mune ya ummul ahbaba ndaysan mune ne nuyoo bii maa ko tasaare mu jëm ci soppe yi xay sumakaanu fuñ fi mëna ne nak ci aduna bi zukuran wa inasan mo xam goor la mo xam jigen la kuma bëgg rek nuyoo bi maa ko xamale ci yow alaykum salaam wa rahmatullah bàyyi ñu ngi lay fay mune ne min kaatibihi nuyoo bi nak mi ngi jugee ci aji bindu ko ilaykum jëm ci yeen kiko bind kan la mune muhibbukum sen soppe bi al mushfiq ko xamne fum tollu mi ngi nam pour gis len déggal alaaji ibrahima ni mu amee mu ne moom daf ñoo bëgg te fu nit ñi bëgg a gis kon ñun taalibe yépp war nañoo eew bàyyi xel ne ku la tegtal keneen ku du cheikhul islam rek dafa bëgg doo egg ci njëriñ yi nga war a jot bàyyi rek moo amee njëriñ yi radiyallahu anhu waxuma la dara waaye bëgg naa la gars buñ ne lu koy fay looy wax maa raw ku la ne bëgg naa la li koy fay mooy maa la raw cheikhul islam alhaaji ibrahim yow dañ lay tuumaal ne da nga koo bëgg nga moom ngay liggéeyal te bàyyi mi ngi bind moom bu yàgg booba juddoo goo ne moom moom sa soppele yow mi ko bëgg loolu jar na xoggali ko jar na ndamu jar na dosé cheikhul islam ne muhibbukum al mushfiq soppe bi nga xam ne daf leen bëgg lool baat boobu jar na taxaw seetlu de seen soppe bi nga xam ne daf leen a bëgg lool radiyallahu taala anhu alaaji ibrahim ku xam baay wala ku xam dara ci cheikhul islam mawlana alhaaji ibrahim da nga xam ne dara munut laa jëriñ lu dul mbëggeelam yow boo koy bëgg sax sa càkkuteef du dara lu dul mu bëgg la rek parce que mbëggeel ku ndaw ke mën a jëriñ ku ndaw ki ci mbëggeel ku ndaw ki ci ku mag ki moo gën a mën a jëriñ ku ndaw ki waaye bàyyi bi mu paree ci loolu dafa ne lu dut mag mu mag ma mag mu mag ma nag mooy yàlla dégg nga ko yàlla nag ki nga xam ne moo ko représenté cheikhul islam wax na ko radiyallahu anhu dégg nga ko euh, palto bu kawe ba li ko ko may radiyallahu anhu palto mu kawe mi dara mayut ko ko لودو ما زلت اعمل لخالقي وللوراء امثل شيخ الاسلام نه مسوما نياك نيك دي ليغيال كيما بيند تا مان ماي ريبريزونتون مندي في كون كاي مو تاخوي لولو موكاي شيخ الاسلام مولانا حاج ابراهيم مو نيكون محبكم المشيق سين سوبي بيلن بغ لول nga xamne waxtu ne mu ngi len di nam ko kan la ibrahim ibn al haj abdullah at tijani cheikhul islam mu ne Ibrahima Niass la di doomi alxaaji Abdullahi Tijaani wa baad gannaaw bu mu expliqué lii yëpp mu ne fa inni man Ibrahima Niass asalullaha taala maa ngi laaj yàlla mu kawe mi maa ngi koy ñaan dégg nga an yanzura mu xool ila jamikum wala ila jamiikum ci yéen ñëpp mu xool leen bi ayni rida ci bëtub ngërmande na leen xool bëtub ngërmande wal lutf ak ñewante yàlla képp kum xool bëtëb yërmande ak ñewante rek du la sonal parce que yàlla bindul kenn pour sonal la wal mahabbati ak bëggu mbë bëtu mbëggeel yàlla kum bëgg daf naan la comme waa badar ñi nga xam ne dañoo xare woon badar buñ paree yonentu daf na leen ahla badrin fal taamalu ma tashauna yéen ñi doon xare badar léegi def leen lu leen neex yàlla bëgg na leen macha allah lu ngeen def rek moom parce que amna foy fooy do doo defati lu dul moom te la yàlla yegg ñu wal mahabbati mune wal qabul ak nangu yàlla nangul la lépp lo defati rek nangul wa an yarzuqana mu wërsëgal ñu wa iyyakum ak yéen quluban ay qal safiyatan yusall qalbu sel set moy qal bo xamne do ci enul kenn mer mo xamne yow man la indil cancer cancer doo nekk waxtu ne nga nekk ci ay stress yoo xam ne mën na laa yóbboo nga dee ci àll bi doo xam lu lay rey ba pare léegoo léeg nga mere ki nga mere sax fekk yëgut xam nga yooyu problème la moo tax bu sa xol bi sellee set yàlla rek nekk ci dégg ko yow doo doo yow kenn du la def problème yow dégg nga day mu ne waa aazaanan waa'iya ak nopp yu mën a dégg nopp yu mën a dégg olof dafay wax mu ne bu fekkoon ne nopp yu guddee tax a dégg mbaam kenn du ko dóor xet waaye nit ki nga xam ne njëriñ dana dajaloo moom mooy koo xam ne buñ ko waxee mu dégg Cheikh Ibrahim mu ne wayu fiqanaa mu dëppale ñu wa iyaakum ak yéen lima fiihi ridaahu ci la nga xam ne ngërmande moo ci ne lépp lu ñuy def rek na fekk ne ngërmandel yàlla sunu borom subhanahu wa taala moo ci ne dégg nga ko wa yashtaghil wa yashghaluna mu soxlaal ñu wa iyaakum ak yéen fima fiihi nafu daarayni ci loo xam ne njëriñal àdduna ak àllaaxira moo ci ne xam nga doomu adama léegoo léeg mi ngi yëngatu ci loo xam ne njëriñam newu ci tey ci àdduna ëllëg àllaaxira yi njëriñam njëriñam nekku ci su xamoon loolu dana ci génn waaye jamonoom moo koy jay mu foog ne mi ngi ci dara fekk nekku ci dara yàlla nañu yàlla musal ci loolu loolu mi ngi mel ni ku mel ni ma nga ca ta ne ca dégg nga ko mi ngi mel ni ki nga xam ne dafa mel ni daf caane te fekk nekku ca yàlla nañu yàlla musal ci loolu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu noonu la ko waxee mune ne wa baadu gannaaw lolu nak fa inni man ibrahim Niass tusikum mangi len di dénk bi taharatil ma'iyya ci la bak ndokh dégg nga ko taalibe baax na ci mom nit sax nit d'abord ku bëgg lu bax waxtu ne war na di takkom japp ndax japp set la te yàlla dafa set sell amna yo xamne xam ne dugal ci jëm ju set sellut ndax hadithul qudsi waxna ne inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban mune nak bo sété waxtu nek ngay laab wa itqanu ssalawati ak rafetal julli del julli te dee ko rafetal wa itqanu lwirdi di rafetal wirda wi waxtu ne bayne ne wa delen setantal bu baakha baakha baakha a qawluhu taala wa yàlla jinnan naan qur'ana ndank ndankal alquran tartil moy nga jang ko di jox hakam dégg nga di piqatal bai yi emu kay ne nga def ko fa lolu nak bu la ko waxee ci alquran jëf ju ne ca yow fiita bi yow menuisier bi yow de kum mana do liggey bo mana nek rek la la ci war khairul umuri awsatuha moy nga ndank ko faxe la ci rafet ak la ci bax nga di def dégg nga ko bal la cay ñaawal ak la cay yàq bu ko def ndax hadis ñëw na ne inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqinahu yàlla dee bëgg na kum mën a ci yéen buy def dara na fexe ba rafet dégg nga wala déggoo loolu suratu muzammil mu ne xaysu am amara allahu foo xamee ne digle ne yàlla taala mu kawe mi bit tartiili ci rafetal tartiil buñ ko waxee mooy toftalantoo boo xam ne dafay rafet dégg nga wa akkadahu mu feddali ko bil masdari ci jugeekuwaay ci gongeekoowaay al mu akkat boo xam ne bu ñu feddali li nafsi yi ñeel boppam ndax alquran ku ne xam ne ne melakaanu yàlla la léegi nag yàlla digle na mbir yi dañ ko war a tartil ba pare mu joxe exemple ci alquran kon dëgg-dëgg war na gaay ñu bàyyi xel lu tax sunu borom subhanahu wa taala sax waxee noonu bu boobaa da nga dégg bu baax mu ne wa razaqna al fahmu dégg nga ko mu wërsëgal ñu dégg anu tukkee ci moom bi man ni ci xéewalam wa karamihi ak tarangam bàyyi ne wa aleykum maa ngi leen di dénk di leen digal bil ijtimaai ci ngeen di dajaloo lil wadifati ngir di wadifa maachara rijaali yéen góor ñi lan nisa waxuma jigéen ñi nag dégg ko foofu nag taxaw seetlu dafa am ndax dafa am pii boo xam ne Baay radiyallahu anhu biñ ko waxee maqsad sàngam kan moo ko moom kan lañ ko war a jox bàyyi dafa ne man baqa baada alfanaa'i wa salaka nahja rasul alxaq wa nafsa malak hada huwa rajulu zakran am unsa dafa am maqaama moo xam ne bu ko jigéen amee sax boo demee ci pays yàlla ba du fa jigéen góor la léegoo-léeg nga dajeg ci zahir nii ci dëkk bi rek benn jigéen boo xam ne ci liggéeyam ni mu ciy góorgóorloo da nga naan jigéen bii moo man góor ñi dégg nga ko jigéen bii moo man góor ñi kon maqaamaam góor la amee moo tax mu ne la kooku moo tax nag bu fekkee ne nit góorgóorlu na sa yàlla ba toll foofa bu ne lan ni saa waxuma jigéen ñi ah bay sa xel bu baax ta nga dégg mu ne waman axada képp koo xam ne jël na jàpp na bi ma amartu ci li mu koy digal bii ci moom fa huwa kooku def fii dimaani mi ngi suma garanti maa ko garanti man alhaaji ibrahima Niass hayyan moo xam mi ngi dund wa ma wala mu dee dégg nga ko maa ko garanti bàyyi radiallahu anhu nag bu ne garanti te dégg ngeen ko yéen ñëpp mu wax ci olof ne képp ku ne la mën naa laa dugal xal janna defal lu la neex daf lay nax dégg nga ko daf lay nax mu ne sëriñ bu ne la mën naa laa dugal xal janna defal lu la neex daf lay nax waxul la li xew jaamul yàlla toppal yàlla topp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam rafetal boo liggéey yàlla yonantu bi la gën a fonk te yonantu Fatima doomam la gën a bëgg te wax na Fatima ne ko yaa Fatimatu imili liggéeyal de ëllëg bu fa nit ñëw ak seen jaamu yàlla yow nga ñëw naan doomu yonantu bi laa دولا جيرين دار دين باين ولا خوف دي رغال علي ديكو نيال ولا حزن دير تيتانغ في لا لتر بي ام والسلام كي بيندون لتر موي كان ابراهيم ابن الحاج عبد الله التجاني دين لطف الله بي في الدارين امين من نك يرسلو دانا ابل لتر بي الى الى الاحباب شي صبي حيث ما كانوا فن مانا نك بواسطه المقدمين شي جوكلو مقدمي كون مقدم بو جوت سي لتر بي رك نكو فخي sotti firi ko mu jëm ci taalibe yëpp parce que Cheikh Ibrahima ne leetar bi taalibe yëpp dañ cee war a jot lii rek dañ doon indi tey yal na yàlla may ñu dégg ak topp lu ci leer ki doon waxee ci nopp yi làmmañ yi da pare jiitu ci nopp yi la muy cheikhul islam wala haaji ibrahima ñas lu ci lëndëm ki ko doon jéem a jottali la in uridu illa lislaha ma stataatu ma tawfiqi illa billah seen bokk ahmad daam ña ngi la sénégal bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu wax leen yéen ñëpp alhamdulillah yéen ñëpp bàyyi nee nañ wax alhamdulilahi rabbil alamin ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen